Merci. Donc, euh, de directeur régional des douanes du Sud-Est, je suis gouverneur de la région de Tambacounda pour constater euh, le travail qui a par la brigade commerciale des douanes de euh, la nuit du dimanche, <clears throat> les agents dans leur travail euh, des opérations de contrôle quotidiennes qu'ils effectuent, mais particulièrement dans les opérations de scanning qui sont partie intégrantes des opérations au niveau des frontières. Donc euh, ils ont procédé à un ciblage et dans ce ciblage, ils ont procédé au scanning de ce camion frigorifique que vous voyez derrière et dont l'image s'est révélée suspecte. Et cette suspicion a été <coughs> euh, suivie par les agents pour procéder donc à un contrôle beaucoup plus approfondi. Ce contrôle a donné pour résultat donc, euh, le, le, la découverte de poudre blanche en plaquettes, soigneusement rangées dans des sacs, dans un compartiment devant abriter euh, le moteur du frigo du camion. Et c'est une cachette aménagée qui a été décelée par l'image du scanner. C'est un produit qui a été testé positif à la pour une valeur totale de 90 milliards 960 millions de francs CFA, soit un, un poids d'une tonne 136,4 euh, kg. Donc je pense que c'est un travail qui fait dans le, la plus grande euh, attention et dans la plus grande observation des pratiques professionnelles qui sont édictées dans l'administration des douanes, surtout dans l'utilisation du scanner, qui en réalité, il faut le dire, est un outil que l'administration a eu l'habitude d'utiliser autant dans les grands ports, les aéroports pour le contrôle des opérations commerciales, mais aujourd'hui, dans la politique de renforcement et de sécurité de nos frontières, ces scanners sont en train d'être déployés pour le contrôle de certains flux. Et ce contrôle sécuritaire de ces flux permettront en réalité d'amoindrir les contrôles euh, physiques et de privilégier ce qu'on appelle les contrôles non intrusifs. Et son, ces contrôles non intrusifs sont assez importants dans un axe comme celui-ci, qui est un corridor pour lequel il faut donc euh, travailler à plus de célérité, de facilitation pour un commerce intrarégional assez florissant. Mais en même temps, ne pas perdre de vue l'aspect euh, sécuritaire. Euh, cette découverte montre que euh, Le directeur général des douanes, qui il n'y a pas très longtemps est passé ici, et qui avait dit donc il voudrait quand même, euh, durant sa gestion, euh, se focaliser sur la valorisation du capital humain par le renforcement des capacités des agents, parce que c'est ça, c'est de cela qu'il faut aujourd'hui. Mais aujourd'hui aussi, l'innovation, la promotion de l'innovation. Donc euh, l'innovation, c'est aujourd'hui toutes nos techniques d'intervention en matière de, de, de, sécurité, en matière de collecte des recettes, doivent être de plus en plus mises à jour, axées tout simplement au finish sur l'atteinte d'un résultat qui est fixé lors de son passage ici. Donc il a magnifié les résultats en termes de collecte des recettes et les performances des unités de la direction régionale du Sud-Est, mais a laissé euh, un mot surtout sur la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. Et je pense qu'aujourd'hui, les agents sont en train de prendre cet aspect-là, qui fait que donc nous orientons nos stratégies et de dire encore qu'ils euh, félicitent l'ensemble des agents, les encouragent et d'oublier très vite Parce que vous savez, euh, il le disait, la douane est engagée dans cette lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. Et ne vous trompez pas, elle n'est pas prête à perdre ce combat-là. Donc tous les agents doivent encore se remobiliser, donc affiner leur stratégie, leur expérience et leur savoir-faire pour tout simplement encore contre contrecarrer ce type de trafic. nous sommes venus là pour constater avec le directeur régional euh, sud-est de la douane cette importante saisie euh, de drogue, euh, de poudre testée à la cocaïne, euh, qui est une, la saisie la plus importante par la voie routière jusqu'ici enregistrée au Sénégal. Et cette importante saisie rapportée à celle effectuée par la brigade mobile de Kumpentum il y a de cela deux semaines, euh, montre la volonté et la détermination des trafiquants à faire de notre région euh, on, une porte d'entrée, euh, un point de passage euh, de la drogue pour entrer dans le Sénégal. Mais cela, c'est sans compter euh, avec la perspicacité des agents de douane, leur détermination et leur engagement à lutter contre la fraude et à lutter contre les trafics illicites et à lutter contre la circulation de tous les produits prohibés ou impropres à la consommation. Je voudrais vraiment saluer leur engagement, féliciter le directeur euh, régional de la douane, féliciter tous les agents qui sont sous son autorité pour cet excellent travail qu'ils mènent au niveau de la région de Tambacounda. En tant que président du comité régional de sécurité, je, vous, je leur affirme vraiment ma satisfaction et ma fierté de travailler avec eux pour vraiment stopper euh, la voie euh, aux trafiquants. C'est pour dire tout simplement que véritablement cette saisie est un signal fort pour toutes les forces de défense et de sécurité, au-delà même de la douane, pour encore davantage se mobiliser pour faire face à ce trafic qui gangrène notre économie. Je voudrais ainsi dire et souligner l'importance et la nécessité de renforcer les moyens matériels et humains de la douane au niveau territorial, c'est-à-dire au niveau de la région de Tambacounda. Au regard de l'immense étendue de la région, Euh, aux environs 42 000 kilomètres carrés. Et au regard également du fait que cette région de Tambacounda partage la frontière avec quatre pays voisins. Et tout cela réuni euh, montre parfaitement la nécessité et l'urgence même pour les autorités étatiques de déployer une unité de scanning au niveau de gulumbu pour renforcer l'unité qui est déjà ici à Kidira et véritablement verrouiller euh, les principaux accès, c'est-à-dire le corridor euh, qui passe par Kidira et la voie, l'important accès qui, qui, passe par Gouloumbou, puisque nous avons constaté que la saisie effectuée euh, il y a deux semaines, euh, est passée, le produit est passé par Gouloumbou. Donc je pense que c'est le moment de renforcer euh, la région en matériel, surtout en unité de scanning. Pour terminer, je voudrais lancer un appel aux populations de la région de Tambacounda de se mobiliser et de renforcer la collaboration avec les agents de douane pour faciliter la lutte que ces agents mènent contre la fraude, contre les trafics illicites et contre la circulation de produits euh, impropres à la consommation. Puisque ces produits, ce phénomène gangrène non seulement la santé des populations, mais également impact négativement l'économie sénégalaise. Donc, aux populations, aux autres forces de défense et de sécurité, à toute l'administration de se mobiliser pour véritablement euh, mettre hors d'état de nuire Euh, ces trafiquants, ces fossoyeurs de notre économie nationale. jërëjëf tey dañoo ñëwoon fii Kidira ànd ak directeur régional euh, sud-est euh, douane pour constater saisie bi nga xamante ne jàpp bi nga xamante ne agent yi nekk fii Kidira jàpp nañ ko te mu nekk euh, drogue bu sinébar bu xaw a takku lu toll ni tonne ak lu tegu ci sinébar buñ ko xoolee mu nekk cocaïne saisie boobu nag dafa wone ne buñ ko yokkee ci saisie bi nga xamante ne def nañ ko euh, euh, fukki fan nag juróom yi passé par euh, la brigade mobile de Koumpentoum dafay wone ne trafiquants yi seen yéen mooy ñuy jaar ci région Tambacounda pour dugal drogue ci biir Sénégal loolu nag dañu soraalewul xereñte ak njaxlafu agent de douane yi nekk ci région Tambacounda ndax liggéey bi ñu liggéey ci région bi mucc na ay xeetu mucc ay ba nga xamante ni ñoo ngi leen di ci sant bu baax di leen féliciter parce que taxaw nañu tem pour que drogue wala xeetu produit ba nga xamante ne baaxul ci doomi aadama bañ a jaar ci région Tambacounda pour dugg Sénégal ci loolu lañuy ñuy jaajëfal euh, directeur régional bi di jaajëfal agent yi nga xamante ñoo jàpp drogue bi ak agent yi liggéey ak directeur régional bi yëpp fii ci région bi di leen wax suñu mbégte ak suñu euh, fierté ba nga xamante ni am nañ ko ci ñoom ak euh, di leen jottali également euh, félicitation ak encouragement autorités yi nga xamante ne ñoo yili réew mi loolu bu amee daf ñuy won itam ne région Tambacounda nu mu toll ci yatuwaay quarante deux kii mille kilomètres carrés yu teg ak defa bokk ak frontière ci ñeenti réew yi nga xamante ne ñoo dënd ak ñun loolu boo ko boolee euh, war na tax ñu ñaan kilifa yi nga xamante ne ñoo ŋànk réew mi ñu gën a yokk mën-mënu douane ci personnel ak ci euh, matériel ba tax na bu ñu mënoon a am euh, scanner ba nga xamante ne mobile la ci côté Gouloumbou bi dina yokku ci scanner bi nekk fii euh, Kidira euh, dina tax ñu mën a euh, boucler corridor bi nga xamante ne moo jaar Kidira ak boucler yoon bi nga xamante ne moo jaar Gouloumbou dugg si biir Tambacounda loolu ñoo ngi koy ñaax ñaan kilifa yi pour véritablement ñu gën a yokku Euh, capacité ak mën-mënu agent douane yi nekk fii ci région bi ñuy woo population yi nag parce que ñoom aussi am nañu euh, rôle bu am solo bu ñu mën a jouer ñu gën a impliqué wu ci xeex bi nga xamante ne douane moo ngi koy xeex lu dem ci fraude ak li dem ci sinébar ak li dem ci produit ya nga xamante ne euh, baaxul ci doomi aadama ñu gën a jege douane gën a diisoog ñoom gën leen a jàppale ci ci ci ci ci renseignement pour que douane mun a gën a def liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy xaar ci moom te ñu nekk ci fii ci région bi euh, loolu nag euh, su amee euh, force de défence et de sécurité yi nga xamante ne mooy gendarmerie police armée ak yeneen xeetu force de défense et de sécurité ñoom aussi ñoo ngi leen di ñaax ñu gën a collaborer ak douane pour que véritablement du point de vue sécuritaire ñu mën a assurer la sécurité au niveau de la région de Tambacounda euh, ndax gis nañu ne euh, trafiquants yi li ñu nar mooy nasaxal suñu économie mais produit yi ñu bëgg a dugal ci ci ci ci suñu réew buñ ko dugalee mën na lor euh, wér-gu-yaramu population yi donc nañu ñun ñëpp administration force de défense et de sécurité notamment la douane nañu taxaw tem pour que véritablement ñu bën a dugal produit yooyu ñu neutraliser Euh, kooku jóg rek pour vraiment nasaxal wér-gu-yaramu suñu population yi ak wér euh, suñu économie jërëjëf wolofu seeree nag lu mu tànnee wolofu joolaa daa bariwul <laughs>